ziara di leen béggee bu baax leen woon affaire de signature bi gis nga booy ñaa fii Balla Gaye taxaw nii foofu lañ ko réservé woon il faut mu arrière ko pour gars yi comprendre bu baax waa parce que booy ñaa fii Balla Gaye taxaw nii fii nii fii lañ ko réservé woon pour mu toog gis nga siège bi niñ ci def gis nga siège bi gis ngeen seize bi booy ñaan ak su ma bu ñëwee du ñëw su ma du ñëw signature bi quoi parce que xam nga gis nga lii yëpp gis nga Balla demal na ci seize bi muy toog nii xam nga am na loo xamante ne ñun waa Pikine tamit waruñu ñàkk fayda di nelaw seetaan booy ñaan muy dem quoi.